ayca mbokku internautes yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte kontaante jàkkaarloowaat ak yéen ñu dellusiwaat suñu kër waay délégué Amar ni ngeen ko xamee tey nag euh, muy def déclaration bu am solo ci moom ni ñu ko waxtaanee ak moom huis clos mais duñ leen ci leeral dara moom la ñuy bàyyi mu waral mu wax ñu lu waral woo bi ñu woo fii site internet yëpp ngi teew ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak kontaante délégué ñu ngi lay nuyu di la jaar di la bàyyi nga nuyoo mbokku internautes yi lay seetaan. maa ngi la jox siyaar sa naataako yi nga àndal di liggéey muy site internet yi mhm. nga xam ne woote ñu wuy si rek daa xaw a jafe mm. bàyyi seen activité yëpp waaye nag samay waa kër ngeen mm-hmm. bu ngeen bu ma leen soxlaa day yomb ci man ndax samay nit ngeen mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp waaye di jiital ci nuyoo bi siyaar bi Serigne Mountakha Mbacké mm-hmm. di ko ñaanal sunu borom yàggal ko te wéral ko ak kàttanoon ko dooleel kon naa li mu am ci yoonu maamam ju sell jooju di seexul xadim mm. mu ànd ko ñun taalibe yi mm. ñu def ci sunu doole ak sunu poos ak sunu lépp ànd ko moom liggéey liggéey ko di ko ñaan kër tarixa diine yëpp mm-hmm. di waaj tamit bis bi nga xam ne mooy sunu bis mooy sunu lépp muy màggalu Tuubaa gi mm-hmm. incha allah ci kàttanu sëñ Tuubaa di mm-hmm. nuyu waa senegal ñëpp bàyyi wunu kenn tey nag li waraloon woote bi mooy lu lu lu lu doy waar la mm. ndaxte dafa am loo xam ne ñëpp moom lan ma xamee mm. muy artiste bi nga xam ne moom moo nekk ci réew mi mm-hmm. yéen ngeen ni ko mooy le chanteur peuple <laughs> déglu ma rek mm-hmm. yéen ngeen ni ko mooy chanteur du peuple waaw gis nañ fi la roi di mbalax mm-hmm. gis nañ fi la star planétaire yooyu yëpp mais yéen yéen ko fal def ko muy chanteur di peuple te na am lu ma naqari lool mm. loo xam ne samay mbiru bopp la yoo xam ne ay tànk yu ma jël la mhm. pour jëmale ko foofu ci artiste boobu mhm. ku ne umpalewul ne man mhm. nit ñi lu nekk lan may wax ndax jëmmam dugg naa fi kaso ndax faramaare ni def naa fi lu ne ndax moom euh, samay mbokk sax naa wax ne am na ñoo xam ne ndax moom mais nag tey nag dina lépp dina leer ci nopp sénégalais yi mhm. décision yi ma jël mhm. benn mooy mhm. euh, li nga xam ne mooy farmarin euh, sunu borom def ko mi ma sunu borom def waali di patron bi di njiit li ma nekkoon fa at ñoom yor voix bi nga xamante ne ni mooy di ko défendre ci internet bi ba tax kenn amul fitu attaqué ko ci internet. <coughs> muy hmm. Jean du Paul. <coughs> kenn amul fit bi hmm. dama nekk fi. Hmm. waaye loolu nag xam naa ne. tànk yi ma jël. waaw ko nam ndax parce que maa jël ay tànk ay tànk yu mel noonu. fii it man li ma bëgg defaluñ ma ko. ok nga. beneen bi tamit il fa lekk gars yi xam ne man kilifa laa. man du ma topp ci ginnaaw kenn. ku dul sëñ Tuubaa ndax dégg ngeen wax bi. dégg du ci ginnaaw kenn ku dul sëñ Tuubaa. Mm-hmm. jëmm jooju nag moom sëñ Tuubaa la ñaan waaye dinaa ci ñëw. Mm-hmm. lu nekk nag laay dégg internet bi lu ne laay dégg lu ne lañ may wax ndax waali may gumba di tax di lóor di di di nit koo xam ne tamit man ma bokk fu baax bokk ci famille bu baax nag mm-hmm. maanaam man dama doon nit koo xam ne tey dama waroon a toog nit ñi ñëw di ma siyaar waaye ñun sunu maam dafa jël lépp jaay ak taalib bi lépp def ko ak taalib bi moo tax ñu nekku ñu koo xam ne day sol dara di lu faral di toog ñu ngi ziar waaye loolu la ñu waroon kon bu ma amee daraja boobu suñu boroom def ma bokk Cheikh Amar mhm. ko xam-xam ne fii milliardaires yi ngi fiy dégg ñu ci bëri ci moom lañ jaar moo leen defar ministre fii yu bëri ci moom lañ jaar moo leen defar artistes yi yu bëri moom lañ jaar moo leen defar mhm. ma bokkat kooku nag kon xanaa bu ma neexoon du ma topp ci ginnaaw kenn di la kaasal mhm. waaye la ma wàlli wan ma ko ba tax ma koy def <clears throat> moo waral ma topp ci ginnaawam di ko kaasal mm-hmm. ba nga xam ne kenn du ko mën a laal ci benn benn côté mm-hmm. mais nag nit ki boo amee loola naqar yi am nga sañ-sañ génn wane ko wax ko mm-hmm. génn wane ko wax ko mooy dafa jot sénégalais yi xam ki ñu am dafa jot état xam kii Wally Seck ndax dégg ngeen wax bi parce que Wally bu nekkoon beneen réew état bi ñoo koy jël teg ko seen wet mhm. di liggéey ak moom mhm. di jël ay xalaatam mhm. di jël ay dooleem di ko def ci seen biir gouvernement lu waral loolu mooy ginnaaw màggalu Tuuba at gàmm at tabaski mel ni Wally Seck seul mooy dugal économie bu bëree ci biir réew mi ndax dégg ngeen wax bi ci ban côté xam naa ne am ngeen déception defe ngeen ne woon ne damay wax lu garaaw mais ci li naa ñëw ba tey damay wax rek de sama xalaat. yow sekk li muy dugal économie bi muy dugal ci biir réew mi à part ak euh, gàmmu ak tabaski amul leneen leneen keneen ku koy dugal ci biir réew li muy def ci ay concert li muy def ci ay concert bi se fermé Wally moo ko fiy def benn benn semaine matu ko sax. Ah. nga def trois concerts ci benn dëkk mm-hmm. muy Kaolack mm-hmm. Louga mm-hmm. at Mbour nga def ko ay guichets fermés c'est pas normal c'est ma taxawal rek déglu rek déglu rek déglu rek ay rek la ñuy sëñ bi da ngeen may déglu yow ma wax wala ngeen bàyyi ma dinaa ñëw benn mm. kon kooku il est temps état jël ko mm. liggéey at moom. Mm. waxuma la mu bokk ci gouvernement bi de. Mm-hmm. mais ñu jël drapo Sénégal teg ko ci ndondam mu yóbbu drapeau Sénégal fukk kenn musul yóbbu comme ni ko sunu papa Ndu Youssou Ndour defee. Mm-hmm. incha allah ndax fii kenn jàmbaar amul kuñ dimbale am. Mm-hmm. jàmbaar amul de kuñ dimbale am. mais il est à état ci boppam muy bi fiy toogat bi fiy jugeet bi fi mën di doon ngeen jël Wally Seck jox ko drapo Sénégal mu def loo xamante ne yóbbu drapeau Sénégal foo xamante ni kenn mus ko fa yóbbu ndax yeneen artistes yi ngay gis ci yeneen dëkk yi dañoo yóbbu seen drapeau réer fu kawe yéen xam ngeen li may wax fu kawe la yóbbu seen réew parce que seen seen état moo leen di jàppale Wally moo fi musul def lu kenn musul def mu ñëw osé osé bi mooy lan mu dem Paris jël salle ba gën a rëy loo xam ne Youssou Ndour moo ko doon def moom wane yoon wi mu am fitu ñëw jël ko tëggu ko à moom gisaatoo beneen africain boo xam ne tëgg na fa wala beneen sénégalais boo xam ne dem na Bercy dem tëgg fa kon tey bu ñu demee ba yëpp suñu papa Youssou Ndour jël lu toll ne arena tëgg ko te arena Macky Sall defu ko fi pour ñu koy tëj est-ce que comprendre nga baax il est temps nag Wally Seck jël arena <laughs> taxawal rek damay ñëw mhm. parce que dafa am artistes yoo xam ne dañ ko fi doon jël suñ demee ba xam ne mbir mi lu dox ñu def ay xaw xawma lan rëb kii médical indi benn lay teg ko ba nga xam ne dootuñu leen mën a jox arena fi toll nii benn benn benn benn mbir dong lan soxla ci Wally Seck hmm. mooy mu indi dem arena jël ko defal ko te bu ko benn promoteur tëgg non waxum guma arena laa la wax. yow <coughs> mu jël arena hmm. tëgg ko parce que arena Wally xajatul ci ay ay esplanade du grand théâtre wala xajatut ay foire xajatut ay lan place de souvenir affaire yooyu noonu parce que loolu dépassé nañ ko Wally Seck mus gëñ na def benn su euh, événement boo xamante ne événement boppam la muy événement bu mag a mag a mag mag a mag boo xam ne pour moom la moo ko def organiser ko boppam gëñ na ko def te il est temps mu def ko li mu koy defee nag mooy lan arena fii it Wally Seck jëlut ay engagement boppam pour dem arena ah. yóbbu fa sénégalais yi ah. man damay bàyyi faramaayeen ak lépp lu taq ci waale. yow loolu moo naqari ko. waaw loolu ci la ci bokk ci la bokk. ci la bokk nga. waaw parce que yéen xam ngeen ne artistes fi nekkoon bëgg a jël arena dem ba ci biir def ay repos médical xaw ma lan médical bëri na. mais man kan moo ko tere waxuñu la tere de man maa la. waaw bëgguñu benn promoteur. di ko tëgg di ko tëgg lu dul lan. waaw ñun faramaare ni jël suñu responsabilité jël waali yóbbu ko arena. parce que xaaral xaaral xaaral déglu ma rek dinañ dinañ ci ñëw. dinañ ci ñëw mhm. parce que arena mhm. président defu ko fi pour ñu koy tëj. Youssou Ndour ñëw na wan la leen yoon bi dem na fa. mais ci kaw tamit ñi ngi ñaan état bi bu ñu demee ba jël arena. Mhm. ñoom nañ ci dugal seen loxo ci benn côté mooy lan dem dikk yi comme ni ñu ko defee woon. ak Youssou Ndour. délégué xam nga ne da ngaa fonto Sénégal. point point boobu leer na léegi léegi dina dina ñëw ci. waaw mooy exactement yow ak relation bi nga am ak Wally Seck. mënoon na la gën a jekk nga dox sa tànk dem kër Wally amoo ko sens interdit. non non non non non non non du affaire la waxuma la pour dem sens eh, dem toog at Wally wax damay wax li nga xam ne bëgg naa ko ñun. ñu def ko. mais mais li nga bëgg. d'accord nañ li Mass wax mooy am solo mais ñun lu ñu jaaxal mooy yow yaa def sa. déclaration ne da ngay déclarer wax ne da am lu la naqari. waaw ci waale waaw nga tàmbale say biir wax ne say mbokk ak ñëpp dañ la beddi ñenn ñi. dama doon ñëw te pare gu ma de ndax uh-huh. la laaj ñun tamit suñuy question parce que léeg li ngay wax nii yow. da nga mel ku yeewu rek sëlmu rek ñëw toog ak bi. non non non non non non non. dañoo dañu dañoo gis ni kii ba pare ba pare leneen waaw déet déet question sur réponse la question sur réponse la na jëmmi Serigne Saliou mi ma yaakaar amul kenn koo xam ne mhm. woo na ma mhm. ne ma li ngay waaja def ci waali bu ko def samay responsabilité bopp la mais yéen yéen yéen ma xam xam ni ma mel ci moom ah kon am na yoo xam ne yéen war ngeen ko comprendre mais am naa lu ma naqari li ma naqari loolu la. mu dem mooy li waali demul li dem arena bi moo ma naqari. at feesal yi muy feesal stade ba nit ñi di def gisa fermé ñii di crise mu jël yenn way yoo xam ne di ko way ci xolu sénégalais yi muy jaxase xolu sénégalais yi. di indi crise loolu moom métti. moo tax da ngay bàyyi question demal ci réponse léegi li ma jaaxal mooy lii nga woote. li waaw foofu laa bëggoon a ñi woo wax ñu. yéen bu ma leen woon ci taa ma bale fii sax da ngeen ñëw parce que sama waa kër ngeen. waaw bu leen wax di ngeen tax nga woo presse bi dama leen woo pour waxtaan yi wax li naqari li ma naqari. mais wax bii nga wax nii hmm. lan la mën a saafara ci li la naqari quoi li ngay wax nii bu ko nit ñi déggee mooy Wally jëlul Dakar Arena loolu moo ma naqari su ko jëlul. si waxuma la Wally na jël. Dakar Arena la waaw sinon nga bàyyi. sinon man. fi fii tëggul Dakar Arena. waaw damay maanaam damay. quitté ci voilà li loolu laa wax bi nii nga ko wax nii lan la mën a saafara. bañaa saafara. parce que dina ko def. c'est pour Faramareen képp ku seetaan vidéo bi dina dem def engagement ba waa li jël arena. mais délégué est yow lii nga bëggoon a wax. lu tax nga bëgg moo doon li dala wax léegi dama siy ñëwaat. Euh, délégué da nga delloo avance bi. am nga loo bëggoon a wax waxoo ko non munoo munoo dama leen tënkal xaaral ma wax la benn affaire su dee galo nga génne ay photo Wally nga wàccee ko mhm. te daa am lu la naqari nga ëbbati ko duñuy wax ay waxu Arena ak Pata Ndiaye ak Moussa Ndiaye euh, kii Paco man sama diggante bi Wally waaw pikk at peel ah, maa ngi wax waxaale tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci staff Wally te jege ko hmm. jox leen benn message ñu bàyyi ko xel hmm. man ay xoqutal taxul ma dellu gannaaw ci waale taxawal rek ay mhm. ma dellu gannaaw ci waale mhm. def nañ ma ñaari façon geste yu doy waar dem naa ñaari concert ñu bloqué sama oto ci porte bi mhm. rek ma waat ci concert ma demoon ñibbi si biir biir ndakaaru taxul ma bàyyi waale de benn bi ci njëkk mooy Louga bu daaw bi dama dem ba ci bunt bi Mass Dakar live xam na li may wax bi ma demee ba ci bunt bi oto waali dugg beneen oto dugg mm-hmm. ndax man yàlla daf daf mën a too benn affaire li mën a too mooy <coughs> waali fépp fu muy tëgg mm-hmm. ci senegal mm-hmm. su ma ko mënee dara jotuma sama oto dama koy taal topp ci ginnaaw otoom lu ko waral mooy kilifa la te star la te oto buy daw pono buy toj kenn mënu laa fan lay tojee loolu moo tax ma jël samay engagement fu muy dem ma topp ci ginnaawam nga xam ne bu yàlla dogaloon ñaanu ma ko yàlla tey pono otoom toj dina mën a jël sama oto dem continuer dem soirée bàyyi ma fa ma defar otoom mm-hmm. pour bi loolu amee concert Louga bu daaw bi mm-hmm. ma ñëw ñu bloqué ma ci porte bi mm-hmm. biñ ma bloqué ma ñu woowaa ji ne lu tax ñu ko mu ne ma diw nee na oto bi du dugg man ne ko ah waaw ma ne ko ah loolu la waa mun a ah, ne ko waa ah, baax na ma ma taalaat sama oto tourné waat Louga ñëwaat Dakar noonu laa ñibbisi waatee Dakar concert daaw jéeg bi laa la wax de bu ren bii tamit bu Kaolack bi gisuma sax seenu Kaolack bi nu mu mel xanaa ci site internet bi ah waaw parce que yëpp ay xooxatal la rek. waaw dinaa ci ñëw. non wii mhm. non dinaa ci ñëw xoxotali lépp naa ci ñëw waaw dina da da dinañ waxtaan rek grand yi ñu waxtaan comprendre nga ñu def ma ko bu Louga bu Louga ma ma jël lépp muñ dëgg sama tànk ñu defaan ma ko ba Kaolack bi paase ma ñëw ba ci bunt bi war a dugg ku jël quatre-vingt mille def sa oto plein loo jëndee ticket tawu la mais man fa séenéwuma fu waale di tëgg may jënd ticket xalaatuma ko sax sama àdduna pour lan ma ñëw ñu boleke ma ma tourné waat sama oto ñibbisiwaat Ndakaaru yooyu yëpp ay xeeti xoqutal la beneen bi mooy ñi nga xam ne tamit dañuy jege Waly am na ci ñoo xam ne mhm. bu bu ma defee interview ci Waly mhm. ñii wax naan non délégué dañ ko war a yemale dañ ko war a yemale nangam ak nangam ak nangam ku ci am fit rek ba bëgg ma yemale mhm. am na sama numéro téléphone xam nga fi ma dëkk te man nga maa woo ma ñëw nga yemale ma. waaw mais gàllali doo rek waaw non non déglu ma am na yoo xam ne sëñ sëñ ma kii jarut nekk di di ah, guddal di gàttal déglu rek xaaral ma xaaral ma wax la rek. non non dafa tey jii bu ma defee interview ci Waly ku jege waale bu waxee waale lu ñaaw ma ñëw défendre ko am na ñoo xam ne dañoo jege waale dañ naan délégué mii dañ ko war a yemale te xaaral xaaral rek non ma wax la rek ñooñu tudd ñu ma ci kenn ñeme wu ci tudd ci internet bi de amul ku ma ci ñemee tudd kenn ma fi doon jéem tudd ci internet bi di ma jéem a classe muy Pawlish Mbaye te du ko def ah waaw te dootu ko def yéen ñii sa jël ngeen ko ba taay mu may classe parce que dootu ko def ba ma ko woowee téléphone la ma ko wax dégg na ko man du ma lan lan lay def biir Faramareen mu nax xoqatal maanaam tey comme lan xoqatal de wax naa la ko ñu may bloqué ci porte wala di man di wala di ma bañ jox nangam at nangam at nangam wala di def geste yoo xamante ne nii ko ah, di dem voilà di voilà te yooyu gest la yoo xam ne pour diggante man at waali mu yàq te waat naa ci jëmmi Serigne Saliou sama yaay ji ma nàmpal sax mënul hmm. yàq sama diggante waali loolu leer cër bi nga jox Wally Seck loolu question mhm. waaw loolu nag war loolu nag war lu ngeen war a laaj la parce que tey Mad Wally mhm. gis nga nit euh, Grand Yves Mad Wally àndewuñ ay way way rek du kóllëre est-ce que comprendre nga baax fi may wax àndewuñ ay way déedéet dañoo àndee jëmmi Sëñ Tuubaa yi nga xam ne moom moom la ma jàppee man tamit loolu laa ko jàppee muy taalibe yëg-yëg xaaral rek da ngay déglu moom yëg-yëg nag yëg-yëg nag gisuñu leen ngeen nekk gàmmu non yow yaa ngi wax yow ñu ngi wax waxu daayira nga may waxu kii ngay waxu daayira daw taxaw rek waxee ñu waay waay maanaam déglul xaaral nga tontu Yves sama waay non non non du ma la tontu ci loolu te tontuwuma Yves yëg-yëg mooy cër bi waaw mooy yëg-yëg mooy ah man de cër bi ma ko jox mhm. jox ma ko kenn ndax yéen gisal ngeen ko seen bopp lim laaj xaaral rek moom su fekkee ne nag mu kii def ma laaj nga bëgg tontu laaj bi wala nga bëgg maa waxaat laaj mais li may li ma kii laaj xam naa ko mën naa ko tontu comprendre nga ba xam waali jox na ma cër bi joxuma cër bi waali du ma grand place at moom bokk leen fréquentation déedéet beneen bi mooy cër bi ma ko jox ñëpp xam ne ne jox naa ko cër moo Cheikh Amar yamalewu ma leen at dara mhm. waaye tey ku mel ne Mass Dakar live exemple rek laay joxe daf may woo téléphone bu ma amee lu ma naqari woo ko mu jox ma ay xalaat hmm. moom bu amee lu ko naqari woo ma ma jox ko ay xalaat hmm. man loolu laa gëm ci ñaari nit yu ànd te bëggante te yàlla rek tax hmm. est-ce que baax li ma la wax parce que man mënuma di dem kër waali di fa toog di waxtaan wala kii di dem di Grand Place ci waali wala nangam at nangam at nangam parce que maat moom dañoo rusante comme ni ma jàkkaaroo yow nii di xoolante maat waali suñ ko def kon gëm naa ne am na cër boo xam ne jox na ma ko xaw ma fesal na ko xaw ma mhm. jox naa ko cër ba fesal ko ñëpp gis nañ ko mhm. ku ne xam na ne damaa respecté waale mhm. ku ne xam na ne waale jaral na ma lu nekk donte ba bëgg naa sama bakkan bi lool waaye bu ko dara doon dal mu nekk sama ginnaaw ma nekk ci kanam parce foofu laa toll ci moom tey ñi fi ñëw nii nii nii di def ay kii di def ay teraanga nangam ñoo ñëpp dañoo jóge ci kër ñëw ci kër te man musuma dem fenn ku ma xam xoolal non non non non sama waay Omaro sama waay la de non non non waxuma comme man ba may defal waali teranga boobu yéen ñi machine ba may ba may jël ay teranga di jënd ay kab oto fruit di ko yóbbul waali da ngeen ko a filmé mosul am non non non non loolu du Omaro Omaro dérangé wu ma de Omaro sama waay la sama xarit la Sëñ Saliou moo tax mu jàpp moom moom comprendre nga mm-hmm. mais tey ñu mel noonu ñooñu mm-hmm. li ma man li may def ci waali mm-hmm. kenn amul fitu def ko ci waali tey la neex ku ci mel ne idaali Hmm. ku ci mel ne ay ñoom xaar xaar ma ku ci mel ne ida euh, ñoom kii nu mu tudd kii am problème ak papaam bu yaagu hmm. ku ci mel ne ay ñoom Cheikh Mbacke hmm. ku ci mel ni soxna yooyu di wax tey lañ am tey lañ am fitu défendre Wally ci internet est que comprendre bu baax ba may défendre Wally ci problème mu t-shirt kenn amul fitu génn ñëpp toog seeni roq ba may défendre Wally at maam góor jasaaka kenn amul fitu génn défendre Wally ñëpp seen roq lañ toog

moom lan lay dund ci man waaye man li may dund ci moom mooy kenn du ko wax lu ñaaw te fii hmm. maa ngi fi. ok te tout le temps ci défendre ko laay def. man ma wax dëgg yàlla loolu mosul am. waali benn yoon la ma mos a jox xar muy tabaski bi passé parce que ànd àndewuñu joxante parce que ci teraanga la ma fekk maas man damaa tedd démb sëñ Tuubaa dimbali ma tey doog a ñëw mhm. man famille bu baax laa bokk benn famille ñetti milliardaire ci famille Amar doo nga koy gis doo ko wër ba gis ko waaw xara rek muy Ahmed Amar Cheikh Amar Cheikh Amar Gabon amul beneen famille boo fay gis famille ñetti milliardaire loolu sëñ Tuubaa mii ñun la ko jagleel kon Wally daf maa fekk ci tedd 2000 fin 2012 laa commencé baatare Wally fin 2012 laa commencé yëkkati sama alal di ko jox Wally ba jonn yàlla tey mais dama dama ñaari question en fait li nga wax ni dañ lay téye sa oto ngay génnaat di tourné di ñu waaw yow bokkoo ci a da ngay dugg da sax waaw mais man maar waale ñoo ànd jógee Ndakaaru waaw taxawal rek non non non rek c'est non taxawal rek maar waale ñoo ànd jógee Ndakaaru dem ba Louga jógee wàll feneen feneen fu muy tourné ñooy ànd mais dafa rafet am affaire bi du affaire de badd wala nangam at nangam am na ñoo xam ne biñ ñëwee ci waali yàggul te pourtant bu waali di dugg ci concert yi dañ leen bàyyi ñu duggat seen oto te maa leen jiitu ci waali fop te duñ takk badd mais pourquoi ñu cité délégué Amar pourquoi ñu cité ma man ñi nga xam ne déggule ma man maar waali du ay waxan téléphone yii nii man moom seexuñu ko. kon nga bëgg mu régler loolu. waaw mais ñoom dinañ ko gisal seen bopp. parce que ma waxee déglu rek boo ma waxee. ku ci mel ne tey manager bi di Ndiago Oro di premier ministre xaw ma dina ci jël ay responsabilité hmm. ku ci mel ne ah waaw parce que maay honorable député lañ ma wax député bu amee lu ko naqari ah ci assemblée bi lay dem presse wër ko mu kaas ay droit am am déet en grand if loolu kese la sa gëdd gi nga war a am ci faramaare ni moom ngay kaas waaw mooy gëdd gi ma war a jox cër gi ma war a jox moo des waxuma ci côté de waaw ba Omaro ñëw ci du Omaro de xam nga tax mag génn di kaas Yves. tey giñ ma téye Kaolack moo métti. moo boole ko bu Louga bi. Yves loolu moom métti. tey média bi buñ groupe woon di dem fenn ngay dem ñu téye la ci bunt bi loolu du yoon parce que ca média ba nga bokk. Mhm. da leen la métti trop daaw laa la wax de ma bës loolu ak sama xol.

parce que délégué Amar day déranger. lu tax déranger. parce que ni ma mel la dama dëgg direct ba pare teg waali fu ma ko fu ko kenn tegul ci ñoom ñoo ñu dee àndal moom. parce que xamul tax. Hmm. xam nga Yves àndal nit te yoru la daa neex. Ah, ñoom waali dana yor. non da ma dama ni àndal nit te yoru la. Hmm. daa neex day tax nga libre man waali yoru ma sama kër fayu ko joxum ma lekk joxum ma naan comprendre kon li may responsabilité yi may jël ci moom engagement yi may jël ci moom du neex ñu bëri parce que ñu bari dañuy jàppale dama koy def waali woo ma jox ma benn un million deux millions barke Ahmadul Xaddim war na jëmmi sëñ Tuubaa mi musuma def interview wala may jàppale waali mu woo ma jox ma xaalis musuma jox xaalis pour ma siiw ba ma man ba may wut ba may ba may ba may wax ci internet di attaqué Moustapha Cissé Lo ak ñi daan attaqué Cheikh Amar booba waali booba ñi ñi àndat waali dañoo xam liy waali waali bu jam jamono ñoom ñi àndat moom ñi buñu daan déglu musique waali dañ daan làqatu amuñu fit déglu ko ci mbedd xanaa tey la neex man ba may défendre di jël ay responsabilité ci Cheikh Amar booba ñii xamuñu luy waali du waali moo tax may nekk ci internet de déedéet ci Cheikh Amar laa ko jiite xaj na waali dafa ñëw ma bëgg ko te yàlla tax mu gën cee a gën cee Euh, da nga wax léegi ci ginnaaw ñu delluwaat ci sorti yi ngay def mhm. souvent nga koy def du am du neex ñenn faramaare ni mhm. mu mel ni sa sorti bu mujj bi dafa indi coow ci amet yu da nga wax wax yoo xam ne dafa ëpp ñoom jëm laa yemale sa place yow loolu tamit bokk na ci loola ñoo ma yemale sama place non wax nga ko sa biir wax parce que waaw non non non waaw waaw waaw parce que loolu munu munuma mënuñu ma ci yemale sama place xam nga ku dem mhm. wax dégg-dégg la laaj ku dem ba ne la yaayu waali maa ngi koy nuyu di yaaju baax di ku baax ko ku di am diine bu génnoon tey moom moom moom attaqué waale midi pile midi dem ma tontu ko. moom kon kay kuy kon ay ay co cooki suppu kànja faale wu ma leen ah, ah? ay te nag ci moomu naw arrêté waxam ji. Hmm. ndax lan parce que góor bu bëree wax bu yàggee dangay ngay soof. Ah, cu yow dama ne cu ah. lu ñu lekk rek cu lu ñu lekk la te déglu rek sëñ bi. am naa xarit boo xam ne Ahmed Ahmed cuub eh, wax ju bari bu yàggee da ngay soof. est-ce nit nit déglu nit bu toogee ne un an six mois fayeekuwul ci fi mu doon liggéeyee loolu waxut dëgg comprendre nga loolu du dëgg amul non loolu amul parce que damaa gis fekkee comprendre nga loolu amul. loolu wax naa ci ba pare jërëtut ma ci ma ci nekk ci foofu. neexul ñu bëri man staff Wally ñu bëri neexuma leen. man wax staff bi loolu ñu bëri neex loolu c'est normal. mais neexuma leen ni ma mel neexu leen. tax parce que xam lu tax chaque jour maa ngi leen di wan loo xamante ne nii que ñoom dañ koy daw ay at duñ ko mën a am maa ngi sol lu rafet di yor oto bu rafet fu Wally jëm ma topp ci ginnaawam di ko may sama alal. mais dem wooyu te Wally joxuma ko loolu da leen metti. mais way fan. sa way bi chaque jour dem jàllul. non man loolu kii déggoo ma la wax ay wayet yooyu. ay wayet yooyu non problème amul sama diggante waali. problème bu amoon sama diggante waali waali génn ci internet bi di yàq sama der du ma ko tontu xam la laa koy tontoo hmm. je t'aime waali.